et du Code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle des 512 maires et présidents de conseils départemental sur les 601 que compte notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisants, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Bernard Bokoyakar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. premier adjoint au maire la commune Est. Euh, jërëjëf maa ngi leen di fay. ñu bàyyi la di nuyu waaw d'abord euh, di profito ci opportunité bi ak occasion bi ngeen nu may di ci tabaski bi ñu jublu jóge di baalu askan wi yëpp ak di leen balaak euh, di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ak jàmm ak sutura ak ay xéewal Euh, comme julli nañ ko ci jàmm ñaan Sénégal jàmm sax fi ba abadan ñëpp nekk ci jàmm lu waay di góorgóorlu it sunu borom dimbali la ci defal la ci tawféex bu sut sa njot aussi di profité waale ci occasion bi nuyu seen PDG sama grand frère la El Hadj Wade di rafetlu liggéey bi muy liggéey ak équipe bi mu àndal yëpp ñoom Cheikh et tout

avec euh, beaucoup de pression parce que ñu ngi doon xalat mu am benen taxaway bu bi mu am euh, c'est le lieu aussi de le remercier remercier nit euh, ci bu amé benn taxaway bo xamné mom ngeen doon xaar ci mom mu am taxaway bobu jaajëfal ko da war Euh, ndax man de bokk naa ci ñi nga xam ne ci plateau télé bu mu mus a dem ci buñ ma ne waxal sa message message bi mooy dama doon ko adressé au président de la république Macky di ko wax ni ko ngir yàlla ñu ngi lay ñaan ñenn ñi wax ni danga am ay ambition def troisième mandat bu leen leen déglu pour l'intérêt du Sénégal et renforcer la démocratie ce la donne ñaan saa nous avons opportunité sur un plateau tey su ni lolo ma doon ñaan tey dugg am la lucidité ak la grandeur wax lolo, kon mënuñu lu dul féliciter diko remercier et nous ko rafetlu aussi waaw loolu moom en un mot mooy vraiment euh, tey Afrique Sénégal yëpp la honoré Sénégal gépp la honoré euh, Afrique la honoré parce que fi ñu doon jëm buñ fa aggoon musiba lay doon bu màbb kumba boo xam ni kenn mënula wax lan mooy xew ëllëg donc su fekkee ni nag moom cohésion sociale boobu paix bobu la stabilité bobu mom mi nga xamni il est le garant su demee ba rendre compte ni mom c'est ça qui pèse sur ses épaules mu dox doxin yi nga xamni mom moom lañ doon xaar ci mom kon doxin wowo mënuñu lu dul di ko euh, euh di ko wax ni ko après euh, le fait d'être un président de la République il y a une autre vie on n'en est pas avec ñun ñi doon maire doon ministre gënuñu ñi nga xamni doonuñu ko yalla mo koy tudd ci sa dund waye nak da ngay nek nit nité bu la ko sunu borom jaglélé bu app ba joté nga xamni da ko nangu won ci nit jox la ko da nangu wat ci yow jox ko kenen il va falloir que ñun ñi nga xamni nous sommes des acteurs politiques ñuy am compréhension bobu de la chose baña a éterniser wu dans les postes en pensant que ni ñun ñoo xam ñoo mën ñoo ay ñoo takke avant ñun am na ñu fi nekkoon après ñun aussi tamit day am ñu fi nekkaat moo tax bu la dénkee benn mbir doxal ko def ci sa kémtulaay kàttan fu mu yem nga xam ni fa la yem askan wa nga laajoon te joxoo leen ñu jox la bu nu nanguwaatee seen yëf wala ni la fii kat nga war a yem je pense que ni lii waru yenu maanaa li nga xam ni mooy responsabilité mooy nga delloo kooku askan wa askan wa daal di jëlaat seeni responsabilité tànnaat ki nga xam ni jàpp nañ ni moo gën si ñoom mu doxal loolu man jàpp naa ni ça doit être dans l'ordre naturel des choses mais malheureusement euh, ces quelques années euh, li ñu fi gis xëccoo mbiicoo mbaaloo euh, mënoon na ñàkk euh, li ñu ciy wax rek mooy sa kii est sa ce qui était vraiment mooy man jàpp naa ni euh, débat bi fi ñu ko xëcc euh, entre temps ak li mu bloqué ci économie Sénégal ak lim ñu yàqal ak ñi nga xam ni ñoo faatu ci diggante bi mënoon nañ ko éviter man jàpp naa ni argument ba nu joxe woon ni su waxoon très tôt que ni il ne sera pas euh, man man man dama jàpp ni bi mu ko bindee ci livre am wax ni ni non il devait tout simplement confirmer ça ne va pas l'empêcher d'être président de la République et de diriger ce pays parce que les sénégalais yi bu nous sous-estimer euh, argument ba que nous avons ni euh, les gens ne vont plus travailler etc. le gouvernement mais del pendant ces sept mois là il y a un gouvernement bu a dynamique que yin fi daan am parce que fi mu calcul amatu fi il sait que ni c'est terminé pour lui donc il va appliquer les intérêts supérieurs du Sénégal en tout cas loolu la ñuy xaar ci Euh, en tout cas dañ naan guletan hein. man aujourd'hui je je l'avoue je suis surpris parce que man Macky Sall wax dëgg yàlla euh, daf ñoo tàmmaloon loo xam ne ki li ñote gauche de droite Moi, man je m'attendais toujours au pire avec lui donc tay euh, la décision man ça m'a surpris franchement euh, parce que moi la thèse que j'ai défendue depuis le début moi il va forcer il va instaurer le chaos non février 2024 Inch'Allah rabbi élection dina am Sénégal parce que man toutes les conditions sont réunies pour que l'élection am parce que li nga xam ne c'est que élection bañ a am lenn la Macky Sall ni day def troisième candidature forcée te jàpp naa ni bu boobaa sénégalais yi duñ ko ci bay mais yenen situation yi nga xamni yépp yëpp euh, dëkk bi dund nañ ko té mu ngi ñëw à venir je pense que ni l'État va être euh, assez responsable pour la gérer. ba tey duñ la bay buñ nee politique mënu ñu wax politique bu jéxal té duñu wax njiitu Pastef Ousmane Sonko. Mhm.

maintenant nag dans la recherche de la stabilité et de la paix bi nga xam ne le président Macky Sall wax ñu di ko encourager mu continuer ci dynamique boobu defe naa ni war nañoo mën a sumbaat yeneen yo waxtaan pour permettre képp ku bëgg a bokk ci élection yi mën participer librement parce que à la fa la budde euh, sénégalais yi ñooy tànn te ku nu tànn ñu mën a respecter leen seen choix euh, bu fekkee ni ñenn ci sénégalais yi jàpp nañ ni Ousmane Sonko il a le meilleur profil man japp naa ni war nañ ko mëna bayyi mu participer à ces élections su fekkee ni euh, sénégalais yi nañ ni Cheikh Bamba Dièye mi nga xamni moy sama leader war naa participer ci élections yi pour doon président de la république nañ ko bayyi mu participer ci élections yi doon un président de la république wala keneen ak keneen man pour man fim tollu le président Macky Sall un acte bi muy posé moy gëna renforcer la cohésion sociale bàyyi acteurs yi nga xamni ni yëpp dañoo bëgg faire. ñu bok et bu les sénégalais vont décider de manière libre kan moy sont sen président de la république s'il juge que ni Ousmane Sonko malgré ses déboires avec la justice mom mo war jité mu jité lenn rek li nga xamni moy limay fatali sama bop diko fatali ñëpp te gëm ko personne n'est au-dessus des lois nit aussi tamit il faut le faire avec beaucoup de retenue parce que du du lu la ndax c'est des choses qu'on pouvait éviter maintenant kon li ci ngal na responsabilité am grandeur dox doxin woo xam ne dina nu éviter ñu dugal ci réew mi ci beneen guuta ndax jàpp naa ni lépp mën nañ ko waxtaanee fi senegal toll. gis nañ na ma bokkul. Mhm. mais à ndax man mooy sama candidat. est-ce mm, c'est parce que ci jikko ci xam-xam ci teggin ci trajectoire tous les éléments yi ngay xam ni moo tax may apprécier man nit mu mën a mat sama leader dama ko gis ci moom dama gis ci moom ak dal dama gis ci moom ak bëggu jàmm dama gis ci moom mu nekk murit taalibe Sëriñ Tuuba mu nekk koo xam ni njàngale Alaaji Malik da koo ñor mu nekk nit koo xam ni doom démb ak tey dafa nekk kàddu gu méngoo jëfinam démb ak tey dafa nekk jëfin bu méngoo te lépp luñ ko mës a dénk ci wàllu jori askan wi téye na ko téyin bu mucc ayib ba saa yuñ ko càmbare duñu gis loo xam ni dañ naan ay la yéwén lii moo ko def kon kooku bu fekkee ni dangay wut njiit njiit bëgg nañ ci koo xam ne lu mu am bokk ak nit ñi té lu ñeneen ñi am mu bàyyi kaak ñom bëgg nañ ci mu am xam-xam am na xam-xam bëgg nañ ci mu mandu maandu na bëgg nañ ci mu am yërmande ci askan wi am na yërmande ci askan wi sénégalais yi nak dans leur majorité ñom ñoy tan waaye japp naa ni on a l'opportunité et l'occasion cette fois-ci de choisir quelqu'un qui aspire à développer le Sénégal dans ses racines parce que boo dégloo le discours de Cheikh Bamba Dièye li muy wax chaque jour mooy Sénégal mënuñu koo développer tant que allié wuñu jangale Serigne Touba Alaaji Malik, ak euh, mag ñu bax ñi nga xamni ne ñoo fi nekkoon té li Senghor doon wax enracinement mais ouverture amna ouverture ci bo deglo discours ak taxawayam nga xamni nit ko dëggu la man japp na ni toutes les conditions sont réunies pour avoir un bon président comme Cheikh Bamba Dièye la bàyyi am na benn question waaw d' abord dafa am lu ma gëm man personnellement en tant que jeune et xaj na ci yar bi la ci waajur yi xaj na ci parti bi ma ne ci nin ma jàngale politique ndax politique man ci nin ma ko jàngalee mooy sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan man dama japp ni deug la xex mars yon la droit la dañ ko wara exercer pleinement mais tal brûler détruire éternel recommencement rek lañuy indil man dama japp ni la waja doon wax kana bas ci wayam ba du ma sànni xeer du ma lakk du taal kër jàmbur damay xaar mu jot ma sànni sama carte jàpp naa ni Macky sàll carte moo ko fi teg te carte moo ko fi war a jële te ñi nga xam ni ñëpp ñi ko wuutu carte leen fi jële kon keneen ku nga xam ni bëgg nañ jeunes yooyu bëgg mu falu bu nekkee Ousmane Sonko la yàlla na bokk na jël seen carte dem sànnil ko buñu jappé ni kenen la nanu jël sen carte dem sànnil ko man japp naa c'est la meilleure attitude mais brûler détruire ce que nous avons tay rek dafa am benn scène bo xamni ni eh, dama ci ñima ma ma di leen attirer sen attention dañu jaar ci tali bi mu bari ay kàmb ak ndox mi ma li tak la fi ñun ñoo jaar Macky jaaru fi donc ñun il faut que ñu am des attitudes beaucoup plus responsables soko waxé nak dañuy japp ni euh, yow euh, engagement bi des mais qui connaît notre trajectoire fi nu jaar xam na ni du ñuy tapet du nu ay boqat te combat dans notre jeunesse on est encore des jeunes on l'a mené et on continue de les mener mais liñ naan nag bay day que weesu mbote évolution day am man la manière de se battre peut être euh, revue et mën nañ adapté au contexte actuel gën ko élevé ba mu imazinga nek rek image yi nga xamni ni ni won légui muy ay casse ay tal man dama japp ni autorisé bu man man sama responsabilité je ni man duma ci participer et j'ai participé à toutes les marches qui a qui ont été autorisés par l'autorité pour dire non à la troisième candidature de euh, Macky Sall, euh, oui pour la libération des détenus politiques, oui pour la participation de Ousmane Sonko et de tous les autres à l'élection présidentielle Lolo mooy lima ma gëm waaye nous la bëgg aussi di doxe te suma aussi tamit inviter à plus de responsabilité dans leurs actes on comprend parfois certaines frustrations

on va vers une élection présidentielle. Euh, l'idéal, c'était qu'il y ait eu une candidature unique. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que dina aboutir En tout cas, moi qui te parle, je suis pessimiste sur ça. Gaumani dina aboutir. Moi, je ci parti bi ma bokk ñun en tout cas nous ñu ngi te fan yu nous avons la am la responsabilité de coordonner les actions du parti au niveau du département et au niveau de la région de Thiès fan nous, di ñëw di ngeen ni nous nous, avons dem Sénégalais yi jaay leen suñu programme jaay leen suñu candidat lu Nous décider nag fala budd ñun nous nous sénégalais yi rek nous yor le dernier mot te am nañu sañ-sañu ñaan leen ñi ñu dëkkal ni leen jàpp nañ ni diw mën na soppi réew mi te diw boobu ñun suñu xel ak suñu yéene su sañoon suñu sañoon mu doon Cheikh Bamba Dièye. waaw xanaa encore une fois rek euh, di leen sant di leen gërëm si professionnalisme bi ak déplacement bi ngeen def euh, di ñaanal tele bi. Eh, yal na gën a yaatu yal na gën a law eh, yéen ñi ciy liggéey it sunu borom defal leen ay promotion yu sut seen jot eh, Sénégal nekk dëkkum jàmm nawet bi nga xam ni moom lañuy dëmmal mu nekk nawet bu barkeel ak ndox mu sedd guy comme dama di jàngalekat di tàggat ay ndongo ba ñuy tey naan suba la bac bi mënuma wax ba terminer te ñaanaluma leen Il eh, defal len examen bu examen ak réussite Il eh, na candidat yi ci am yëpp sunu borom def ñu réussir au leur examen parce que lu xew c'est le Sénégal qui gagne eh, qu'on ait un Sénégal de paix de prospérité surtout un Sénégal développé et que nos valeurs cardinales soient soient soient respectées Merci. tv, la pronunciación que es